asalaamaaleykum dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV Dakar jamono bii nag ma ngay jax Anta Babacar Ngom daal di nañ koy téye gannaaw ba nga xamee ne nag daal di nay génn wéyal ay campagne comme ni mu ko waxee woon. waaye nag gis nañ waa dikk daal di koy jàpp pamte pamte ko ba mbaxana ma mujjee wadd mu nekk mbir yu doy waar njiital pir lii tamit gis nañ ko moom it mu takk ay dàllam ànd ak ay sécurité am ngir wëyal doxali campagne ya. jamono bi nak Dakar mom ma ngay yëngu président Macky Sall ni ngay jot ay information ñu ne sax nak jamono bi dal dal dinañ koy téewandi mu nek nak mbir yu doy war yo xam ma ngay xew fi ci sunum rew di Sénégal gannaaw ba discours bu président Macky Sall ba génnee ba légui dal ñu bare bare bari dañoo jaxlé jommi ndax dañoo am lu leen bett dina ci candidat yi mbettel gu reey reey dal mom lañ ci jëlé ndax jàppoon nañ ne heure bi dina fekk ñuy doxal seeni campagne ni mu waree te coow du jib dara du am waaye nag jamono bii campagne yi jaxasoo na lool mu ngay yëngu zeme yi ak ñi nga xam ne nag ñoo di population bi instant bii nag moom ña ngay jàppante jàppante yu mette métti fi mu gën a ràññeekoon nag mooy Dakar nekk nag mbir yoo xam ne doy na waar lool si bile jamono élection yi nga xam ne ñaar fukki fan képp lañ mënoon a wax ne moo si des kii di président Macky Sall daal di jël ab dogal daal di koy annulé lu mësta am si réewum Sénégal loolu nag tax na sénégalais lu ni mel mënuñu ko nangu te duñu ko d'accord